بسم الله اكفيني الأقدار يا الله سبي البقاء ابي لبيك يا الله يا ما له الأمر يا من لا شريك له وزي ومال لواء لبيك يا الله bismillah ik fiñil ak daana yàllaahum sabi bismillah ik fiñil ak daana yàllaahum sabi baqa abi libika yàllaahum yaa maa lahul amru yaa Saliou Ndigal Thioune yàlla na fi yàgg lool te mu gën a wér waaw Serigne Saliou Ndigal Thioune yàlla na fi yàgg loolu te mu gën a wér waaw di ko ñaanal njaboot Sëñ Béthio yëpp di siyaar euh, mbokk taalibe yëpp sang bi dañ ñëwoon ngir euh, ndokkeel si la ci bés bi sant si la ci ngir euh, jéem a fay teraanga bi ndem moom ñu ko fay suñu diggante ak Serigne Béthio muy muy muy lépp ndax tey ku ci mën a toog ba mën a yëkkati kàddu di wax sëñ Béthio tax ku ci am teraanga sëñ Béthio moo tax man boog man man lu ma mën sëñ Béthio tax ma te ànd bi ma ànd ak sëñ Béthio moo ma def lu ne moo ma moo may tey sax ma am sag kon bu bés bu mel ni jotee muy màggalu Serigne tubaab bi nga xam ne ci lañu sëñ Béthio nampatal sëñ Béthio moom la ñu bàyyil sëñ Béthio moom la ñu dénk sëñ Béthio def la ni mu la def nga nekk sunu kilifa nekk sunu su sunu sëriñ nekk suñu sag ndax nag eh, sëriñ bi bu doon sëñ Béthio de laa bàyyee mbir mi am noo xamante ne deme na noonu ñun sax dañuy dañuy loof pour dox waaye tey eh, sëñ Saan ndeysaan moom su su waxee même ku dul ab ab cantaakun sax day bëgg dégluwaat wax yi ngir ni mu tegginee ngir ni mu rafetee ngir nit ñu wanaatee ñun sax dañoo war a gën a mën a yaru loolu moo tax ñu ñëwoon ngir sant si la indi suñu addiya ci màggalu Serigne Touba bi lépp lu ñu indi tamit xeeb nañu ndax sa waajur bi defal nañu lu nekk tey su màggalu sëñ Touba jotee war nañoo jaay li ñu yor yëpp ngir defar def ko ci màggalu Serigne Touba ndax loolu la ñu sëñ beccu jàngal waaw kon euh, ma ñëw di la sant bu baax ci nii nga ma téye nii nga ma fonke nii nga ma jàppee nii nga ma yégee waaw loolu day dem ba nga xam ne sax damay damay damay tiit ci loolu sëriñ bi ndax euh, sa oyofaay ni nga oyofee ci ñun wax dëgg yàlla ku ci ku ci ku ci ku ci ku ci teyluwul rek mën na laa yàq lu bari bari bari mën na laa sànq waaw ndax yaay sëñ bay loolu moom du lu ñu waxtaanee sëriñ bee ko def ko ci yow waaw ànd ak waa Tivaouane Peulh ànd ak euh, sama waa daara yi ak mbokk taalibe yi ak sama soxna yi sama rakk yi ñëpp daal ñu siyaar si la ngir sant si la ci bés bi indi suñu addiya bu tuuti jox la ko ngir nga ñaanal ñu bu déwénee ñu gën a mën lu ëpp la ndax loolu ñu wax di jégalu bu baax ci kàddu yi di ñaan nga yargaat te nga gën a wér jërëjëf. maa ngi leen di nuyu te di bëgg lool di ndokkeel bokki taalibe yëpp bokki taalibe murid yi bokki jullit yi ci weeru safar Bassirou Ka ak waa Tivaouane Pël maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu nuyu bu tedd yow day da ngay jëmm ju baax yoo xam ni li nga wax ci man léegi lu ko raw a ngi ci yow am nañu kilifa muy Serigne Cheikh mooy sëriñ Saliou ci ñun di sëriñ Béthio ci ñun moo yàgg naa ko wax nee naa leen ba ma nee Serigne Cheikh rek na ngeen dégg ci biir ni man sëñ Béthio laay waxal na ngeen dégg ci biir ni Serigne Saliou laay wax ndax ñun mooy suñu bunt ci Serigne Saliou te mbirum Serigne Saliou day lu taxaw mukk te noona rek lan ko àdd kon ñun taalube googu am nan ko ndax jël nañ suñu bopp jox Serigne si te liggéey ba sëñ suñu sang ba daan liggéey ci daara yi muy ci dongo yi muy muy muy liggéey boo xam ni moom sëriñ Saliou daan na ko diggal ci liggéey boobu rek ci lañ ne loolu la ñuy wóyal ba ba nëgën kon nag na xam ni euh, lu dul ak taalu rek amul solo maa ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal nag waa di ñaan ndax ñu mel ni yéen kat ñaanal leen mooy ñaanal suñu rek ndax yéen de mbirum sëñ Béthio rek a leen ñor ma ci jàngat mooy yow mbirum sëñ bi rek a la ñor loolu nag mooy lii mat a am. kon maa ngi leen di sant bu baax di rafet rafetlu àddi yi nga xam ni jox nga ma ko jox nga ma koppar yu bari nag wii ci bunt bi it nee nañ ma yaa ko yaa ko fi indi maa ngi ñëw léegi xool ko waaw xam naa ni nag wi nga fi indi yow moom nag wu rafet rek lay mën a nekk ndax nagu wu yéene lay doon waaw nag yëpp day ca yi rek ko fi indi waaw du tey rek nga ma ko mas jox nag saa su ne yaa ngi koy indi lu xew nga indi sa àddiya bërki démb ci 17 avril bi rek ñëw nga indil ma sa addiya yàlla na nga ko gën a man te sëriñ bi fulal la ko te loolee mu diggee ci addiya yàlla na dal sa addiya yi nga ci barkeb sëriñ Saliou jaa ngeen